yàlla daal faal nga yëngoo am di moodo Mustafa faal mu ñëpp def nañu màggal sax moodo Mustafa faal yàlla waay baab yi ulaaw laa ilaa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 بمن الله في النار النمار ولا فارغ ولا عباد الغلام شريف صار عبر فارغ مرضي امام قفرا لا اله الا الله سهر لا Um,

لا إله إلا الله العالمين أمر ماذا لصباحا ولا بالها بيما أمر ماذا لصباحا ولا بالها بيما أمر ماذا لصباحا وداع الباب الأولى أمر ماذا لصباحا وداع الباب الأولى أمر ماذا لا إله إلا الله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 له soo guddee jaam ñi fande suuru maam sey na bu njaay Seex Ibrahima Faal yaa ñu ginde suuru maam sey na bu njaay Seex Ibrahima Faal yaa ñu ginde dimbaloo faal yërmande doole góor faal ak guy deex dimbaloo faal yërmande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 Musaa la ilaha illallah addi man sere Fall ñoo ngi ñëpp wax Serigne Cheikh Khadim Fall na fi yàgg te wér Allahu akbar na ñëpp wax ñu ngi ñaanal Serigne Amdi Fall moo sëñ Modou Mbanda yàlla yàlla guddal fanam yàlla ko yàlla wéral li mu yéene lépp yàlla ko àggale barke maam Cheikh Baye Rajab jërëjëf Sëriñ Ndiaye ay la nañu magal maam Ndiaye ma faral cura bay lay yàlla yaay jarama sala xalam abdou jalal lay balla la xalam bay soda la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah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 egsi na asalaamualeykum wa rahmatullah laay laay maxtaar ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jiital ci biir nuyoo bi ak ziyaara bi sëriñ xaadim faal mi nga xam ne suñu sëriñ la yëpp rek karaman dafa di saxoo di laay laay mel ne gaa yi bàyyi ñii ka ñàkk caay caay ñoo si gën nga loolu di saxoo di laay laay mel gaa yi bàyyi laay ñii ak ñoo ka ñàkk caay caay ñoo si gën limaamu bu ko dañ la laay li mu def fii ci Kaffrine ana beneen micro bi waaw bii ñëw li mu def fii ci Kaffrine ak tiggoo ak borom Tuubaa Xaadimu Rasuul ndax lii kat day ànd ba yàgg kon bu ngeen àndi surtout ci Ibrahima Fall bii nga xamante ni ñoo bopp leen lu ñu yëkkati te muy baatub laa ilaha illallah alquran wax na ko xul yaa ahlal kitaab tax تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا yàlla taxaw yàlla jërëjëf jëf jërëjëf dañuy sant yàlla bu baax ndax yàlla dogal na daaw teewoon nañ fi defoon fi lii amaat yéenay defaat ko di ñaan yàlla defal ñu ci ndam te jàppale ñu lii nag ñu def mënul ñàkk ndax suñu diggante ak waa kër Cheikh Ahmadou Bamba dafay diggante mu yàgg te dëgër koroog bi Seydina Isa Abdullahi génnee àdduna di waajuru Chérif Abdoulaye Thiaw ak Chérif Ousseynou Serigne Fallou Mbacké dafa di jaale ji Seydina Isa ku fa sa tànk tegu sa yaram araamal na sawar digal rakkam ji toppoon ci moom sëñ Bassirou Mbacké ne ko jiiteel délégation bi àndal ak Serigne Moussa ba mu ñëwee la si gil di njame di jaale aboori jaale nasulul imaam yi sëñ Moussa wax loolu yéen gaa yi laa yéen ziyaar si naa leen te jaale naa leen doomi lima kon sëñ Cheikh sëñ Cheikh Khadim Fall bu wootee lu mel nii wooteel ko lislaam bi dañ cee war a teew def ci li ñu war a def ñuy ñaan yàlla comme waxtu yi dafa xat te ñu war a yëngu dañoo bari ñu def ñu defoon rek ci daraja yeneen bi bismillah la ilaha illallah Cheikh Ibrahima moo xemem la man moo tax ma doon ta faale faw ci baati lamp yaa may suturaal si xiba faale man le xam naa tax ba murid yi jariñu ci Seexu Bamba ña jiitu ñoom xamunu xewal gi tuuru na Sëriñ Saaliwu Faal xeer gi tuuru na te dootul jeexatey ku lekk naan ba man di faal war laa sant di Seexira Faal Seexira Faal Seexira Faal Seexira Faal Seexira Faal ba dal ba say noon ku la bañ di yaatee ci àddina gi ba keroog muy xëy faatu borom baax laa jaajëf يسارعون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار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 فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواه جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله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 ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حد عظيم صدق الله العظيم صل وسلم صل وسلم على المكلم ودنيا سم وصنوها البراء زح زح ضيرا في قلت ميرا فلتكفي جورا لمن يرائي أنقذ عيالي من الضلال وبالحلال خلق رائق عتابا خذوا للكتابا واقبل متابا يا ذا الشراء يا خير رب خير مرب طيبت قلبي بعد الجدال صل وسلم على المتم وكن يعصم بلا انتهاء هذا اسم الجليل في اوائل حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لحمد الحفيظ السالم ثم على المهدي سلام العاصم شاء أن يلقي الحفيد المانعة أن كان عنا كل ضر دافعة بجاه سيد الورى والصحب عليهم أزكى صلاة الرب نحن الذين لا نلوذ أبدا إلا لربنا هنا ثم غدا أسألك العصمة كل عصر من شر عين وكلام البشر احفظ جميع من تعلق بها من كل ما يفسد شأن ربها به ساخرا توابع جميع جميعا حتى يصير كلهم مطيعا زمنا هذه يهدنا الصراط المستقيم ونجنا من الشيطان الرجيم ولا تؤاخذنا بشيء من الذنوب تفضلا وكلنا كل عيوب نحن عيالك يا عافي يا جليل يا جليل وعاملنا الرب باللطف الجميل عن نعفو كل فعل قبيحة قدنا هنا وفي غد فضيحة من علينا أبدا بالعافية دائمة يا الله يا ذا الوقت أنت الذي تعصم من بك اعتصم إني بك اعتصمت هب لي معتصم نفو خفض الرحم بعدما فوت أمري إلى رب السماء وهو الذي يحيز بالعطاء بالابتداء كيف الابتداء كفى بربي واقيا وحافظا من كل ما يكون شخصا لافظا يقيم لسعاد كل شيء وكل ما يسكن في الدف لله كل حمد والصلاة للذي به تنال الهدى مرد عن شهر أي مفارق ñu ñaan ci kàttanu yàlla suñu Cheikh Khady yàlla nga fi yàgg te wér yàlla nga fi yàgg te wér ñëpp wax ci Cheikh Khady Fall yàlla fi yàgg te wér ndax moo nu may occasion bii ñu mën a ñëw fekk guddig mam si Arafat kon ñun ñoo ngi koy ñaanal sant yàlla xalifaam ak si na di sëriñam sëñ Abdou Fall moom sëñ Mortala Fall kon alhamdulilah kon jébbale nañu kàddu gi jërëjëf jërëjëf kon nag bismillah sëriñ bi dafa bëgg sëriñ Cheikh Ndoye jige si ak góor yàlla yi may àndal ndax daal li war a def ci suba ba tey def nañ ko muy jàng alxuraan ak togg aw ñam joxe ko siyaarante ci bis bi ba ñetti waxtu jot mu bëgg nag nan daan defe sëñ Iba Cuun ñu defe ko noonu mooy fii ñu taxaw Cheikh Ndour dafa daan taxaw naka jekk di tudd yàlla ba bët set wicc waaye ñu ànd koog njabootu Cheikhul Xadim gi toog di sëriñ Làmp Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi ngi noonu toog ci image yi sëriñ Làmp Mbàkke moom monsieur mu Moustapha Bassirou mu ngi noonu toog sëriñ Lamp Mbàkke moom sëñ Cheikh Oustafal ñu bàyyi ko ci jëwriñu Cheikhul Khadim ji Cheikh Mouhamadou Mountakha yal na fi yàgg loolu te ànd nag ka mu dénk quartier ba ñi leen kaa leen ànd ak yi ma tuddee Cheikh Ibra Fall dem fekk ma jàmbaare ji sëñ Abdou Khadim sëñ xam ne bis bi ñor na ma sëñ Cheikh sëriñ baa lay nuyu bu baax di la ñaanal bis bi nga yàgg koo taxawee ànd ko sa kilifa yëpp waaye fi muy dugg see fi la jëwriñu sëñ Mortala ji dugg see ñépp seen ko mel ni moom rek muy tenkam tenk bi mel ni ku yorul dara te fees dell tey ma nga ne toog fekk fi doomam yu baax yee sëriñ Falilu Mbar bàyyi ko ci sëriñ Amdi Fall moom sëñ Modou Fall Mbenda Modou Yaay Mbenda sëriñ Daam Fall nga ne toog ànd ak sëriñ Amdi Taala ak sëñ Daam Solo mi yor kàddu bi ñu ngi nii toog waaye langal sëriñ bu sëriñ Modou Yaay si Dooki ak sëriñ Makhtar Fall bu sëñ Mbàkke Modou Mbenda sëriñ Cheikh Soda Fall nga ne ca kaw ànd ak sëriñ Bassirou Fall Cokte ak sëriñ Xaadim Fall ak mboolem njabootu Cheikh Ibra Fall bi ñëpp ci biir góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp dinañ la wuy si. dëgg la sëñ Cheikh da ngaa tànqal lu kenn lu xew ci yow yi nag guy ji sa wërsëg ak sa jëmm ak sa njaboot ak sa mbooloo ku nekk xam ne ni su ma la màggalu sëriñ Abdou bi waaye boo gisee tit bi mel nii mu mel su jikko jiyee dëgg la su ma la màggalu sëriñ Abdou Lahad ku woote bis ñuy su ma la màggalu sëriñ Abdou mu mel ni mu mel Cheikh Fall xool sa bopp kon góor yàlla yi jigéen leen dañuy di tàmbali Cheikh Ndoye mu ñëw waaye sëñ Ba Thioune waaw sëñ Moustapha mhm. délégation bi Serigne Mountakha yónni mhm. muy Serigne Lamp Mbacke doomam mu tudd ko moom Cheikh Ibrahima Fall benn